Cheikh Bamba ko waxoon ci moom muy yaatal Cheikh Mamadul Murtala fu man di dem lislaam la doon xëy àndal yaawaasi an ja Cheikh Bamba waxoon ca way wa moo yàkkali mbirum Cheikh Murtada loolu doy na xarwa ku bëgg a jàng te yow nga daara jaajëfati Cheikh Murtala sëtu maam jaara Cheikh Murtala moo baax te moo fi mat way gëm nan ko sopp nan ko baay baay sunu loola noorun ala nooray ni Cheikh Mamadul Murtada nam bëgge woon sëntuuba Tuuba moom yombu la roy sëriñ Murtada bëkkum gërëm nga am ngërëm fa yàlla Cheikh Murtada ku ko liggéeyal faw yàlla fay la bokk yi nu bokk déglu kii di wax mooy sët mooy cërub Cheikh Ibra ci kër Cheikh Murtada soxna maam Boussa Fall wuy juróom sëñ Modou Moussa Fall Cheikh Ibra mooy Baye Fallou kër Cheikh Moutada bokk yi Cheikh Mouhamadul Fadel nee na aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlaana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwani wa tamkin bokk yi ginnaaw bu nu santee yàlla julli ci yonent bi noo ngi leen di nuyu ci turu cheikh Mamor Mbakke ibnu cheikh Mouhamadul Moutada ak turu sunu kilifa cheikh Mouhamadul Muntaka yàlla na nu fi yàgg lool te wér amin te nu ànd ko ak ñoom li nu fi andi nag dafay ñetti yëf bi ci jëkk mooy bis bi cheikh Mouhamadul Mourtada lañu ko tudde bis bi cheikh Mamor Mbacke jox nu ndigal di sunu kilifa nu ñëw teewal ko fi maag mboolem sama rakk yii ma àndal ñoom ñépp li ma yëkkati rek moo leen yëkkati beneen bi ñetteel muy Serigne Cheikh Oumy Mbacké mi ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal waajuram Serigne Falilu la mu Cheikh Moutada tudde kon liñ ci war a wax nag waxtaan wi ginnaaw temps bi dafa jeex mënunoo def lu dara lu nuyu mbooloo mi wax leen itam li nu yëkkati muy ñett yi ma lim léegi bu loolu wéyee Serigne Touba moom kenn ku nekk xam na ne la mu daan digle mooy ragal yàlla ak topp yàlla ndax dafa amoon benn taalibeem bu ñuy wax Abdullahi bu Abdullahi taxawee nag la ko Sëriñ Tuubaa wax taalibe yépp dugg nañu ci biir sëriñ bi dafa wax Abdullahi ni ko maa ngi lay dénk yow Abdullah ragal yàlla ci waxtu wu ne ni ko Abdullahi boo bëggee mucc ëllëg yomal xiyaam làq ak texe na nga sellal sab xol te taqalikoo ak biddaa te taqoo faw ak sunna sallallahu alayhi wa sallam te sàmmu sëriñ bi wax Abdullahi ni ko bul taqalikoo ak ñu baax ñi mukk bul ànd mukk ak ñu bon ñi bul dañ mukk itam ci saafara sa ayibi bopp waaye ayibi jàmbur bu ci sa yoon nekk bu ca dugg Sëriñ Tuubaa waxaat Abdullahi itam jëf li la sunu boroom digal jafe na waaye wajtani ban ma anaha rabbuka yasru alayka yasuru alayka fii aluma amraka na nga wattandiku na nga teet na nga daw lépp lu la sa borom tere boo ko defee jëf li na sunu borom digal dana ko jàppandal lii nag néew na waaye nag am na njariñ lool na nga takkoo ak tàpp na nga takkoo ak moom Sëriñ Tuubaa nag moom li mu daan digal doomi mbokk yi mooy lii tax Cheikh Mouhamadul Moutada jóg xam-xam la daan digle ak teggin ak jëf ju baax te bàyyi po xam-xam dafay wommat nit ki jëmmale ko ci lu koy bégloo réer dafay wommat nit ki jëmale ko ci lu koy lor ñàkk ay teggin dafay wommat nit ki jëmee ko ci sori yàlla yàlla nu ci amin xam ba noppi itam ñàkk jëfe loolu it dafay wommat nit ki jëme jëmale ko ci alkande yàlla na nu ci yàlla bari am po itam day xaña ay yool na ngeen farlu bu ngeen nekkee ci kër yi ak bu ngeen nekkee ci àll bi waxi Sëriñ Tuubaa ngoog noo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp ci turu sëriñ Mamor Mbakke ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke turu njabootuk Sëriñ Tuubaa gi fi teew gépp nun nag suñuy wax dafa bariwul ndax defe naa teew sax ci barab yu mel nii li ma ko def bariwul tey jii laa ko mas def defe naa li tax nag ma ñëw fii mooy ndigal li ma sëriñ Maam Mor di sama kilifa jox jërë ngeen jëf noo ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp barkeb sëriñ Touba amin bakki gorom bii mu dendal di taalibeeb sëriñ Touba muy alaaji aaroon Kumba Ndoofeen Juuf moom itam nu koy nuyu bu baax di ko sant di sant mboole mbokkam yi mu àndal noo ngi leen di sant di leen ñaanal di ñaanal nag réew mi yépp jàmm rek am ci ndax lu dul jàmm noppalewul jàmm le dong moo noppale sunu borom mi yor jàmm nag yàlla na nu ko defal noo ngi sant sunu rakk ji itam sëriñ Xaadim Lo gay del sëriñ Cheikh Oumy mii nga xam ne sunu rakk la doon jëmm joo xam ne itam ak taalibe dong nga ko ñor loolu moom mën nañ koo seede ci sëriñ Cheikh Oumy mii jërë ngeen jëf